soo bu mujj ñaata at nga sama prison bii mujj nii. dix ans lañ ma tëjoon. dix ans waaw ma def six ans ñu baal ma grâce. lan euh, lan la mujj jàppee. man mooy li may wax rek. Euh, sama problème bii passé man liñ ma tëjee dix ans waruñu ma ko tëjee dix ans. mais comme li may wax rek justice dafa am sostis am ak dundu gis. mën nga ma firi ñett yooyu. justice sostis ak dundu gis. mën nga ma ko firil. est-ce que duma la bàyyi nga gën ko leeralal Sénégalais yi. la mooy justice. très bien justice mooy mooy maanaam ki lay attee ngir justice mu juste xam ne moom mi lim lay attee nii loolu ñëpp ànd nañ ci. Mhm. injustice mooy maanaam yow defoo dara yëgoo tinoo ñu bugg la juger comme ku def. mooy justice. très bien léegi dund gis. dund gis mooy maanaam yow li ngay dund nii man li may dund nii. ku nekk am na looy dund la métti. ok loolooy dund gis. ok maanaam nga nekk ci biir war ko dund. ok waaw c'est dur. lan la la tëjee woon bu mujj bi. ban bii nii. dix ans lañ ma tëjoon. ma ni lan lan la jàppee woon. voilà lan lañ jàppoon dama moom benn problème bu ñuy wax euh, problème ma ma kër ñoo amoon problème benn policier bu ñuy wax Matar Diop alliance Maha. Mm-hmm. man ak moom dañu am benn genre gitangaas. Mm-hmm. maanaam dañu am problème. Mm-hmm. léegi problème am problème bi ñu bi bi problème bi li ko indi yëpp. affaire de jigéen la. Mm-hmm. waaw parce que dafa am benn euh, yaay booy boo xamante ne man ak moom ñoo nekk. Mm-hmm. téléphone am sonné. Mm-hmm. ma yee ko ne koy am na ku lay woore mu jug gis appel bi tëddaat. appel bi ensonné waat. ma décorosé. moom ci boppam xam naa dafa foogante ne ku jigéen ki moo décorosé. mu wax saaga. ma ne ko mais sa waa ji yow xam nga ku décorosé sa nga saaga mu ne ma kooka la ma ne ko man la Latir mbay borom xar bi gis na xaram xaram util beneen nii mu mu kii kërëb kërëb ma saaga ko coupé. léegi nag ranking di daw. ranking di daw. ba benn jour am ñoo xam ne dañoo këf saagu jàmbur. damay damay wax li nga xamante ne noonu la demee. Uh-huh. am ñu këf saagu jàmbur. Uh-huh. te fu ñu ko këfee sama koñ la. te du ma nangu man nit jóge secteur. ñëw di def dara sama koñ loolu sama defet la man. ñëw di sa defet. kon su boobaa du jar dara. dana nga léegi bañ man ñoom ñoom ñoom maanaam ba ñuy romb sama koñ dama def benn maanaam xuuxal booy bi yoroon saat bi rek laay laay visé man. xam nga léegi ni mu ñëwee ma ne ko taral nangu saat bi léegi bugguma ko bàyyi gaa yi di ko gaañ. man dama nangu saat bi rek bàyyi ko mu romb. léegi ñi ko doon dàq di ñëw man leen kan moo moom saat bi ñoom ñëpp ñuy xoolante man leen mais ana borom saat bi léegi am ci biir ñu naan waaye ñoom ñëpp ànd ñoom ñëpp ànd ma gis sama bopp réagir nag. saaga. xam nga jékki-jékki rek am benn xeer bu ma dal. ma xëm police laa ximili ko. ah bon léegi bu ma ximili ko police ma xam ne ma nag li waaye doon jaay nag tey mu lamb xam nga ne c'est de pour mu génne ma. c'est de bi génne ma mu dóor ma mbéj. fekk ñu ma mën a man tam ma dóor ko mbéj ñu xaw a kërti kërti noonu dugalaat ma ci biir violon bi. Mhm. mu ne ma moom en personnel ni la ma ko waxee boo demee dinañ la tëj dix ans. moom ci boppam moo moom en en personne ma booy dem ñu lay tëj ma ne ko yow dooy yàlla dooy yonent boo dee yàlla tawal xeer mu defeere ma tàppeel ma des malfaiteurs. Mm. détention arme blanche ah waaw association des malfaiteurs détention arme xaw ma usage da xaw ma lan. Mm-hmm. affaire yooyu noonu il est argument teg mais association des malfaiteurs benn nit mun na def association des malfaiteurs non non ma dem kaso toog fa ay trois ans dew ma enquête looloo waraloon suñu grève bi nga doon dégg nii mutinerie bi. d'accord ñu woon pour daw. grève ñu woon pour violence. dañoo grève ngir suñu àq ak suñu yeleef. muy maanaam kañ la ñuy dem tribunal. kañ lañ ñuy woo. ñun loolu lañ doon grève suñu droit lañ nekkoon. d'accord bañ nañ ko ba ñu ñu doon grève yëpp bandeau rouge lañ taxoon. d'accord. ba pare dina leen carrément non à la violence. ci biir ci biir. mais après boo gisee affaire yi ëpp doole. mooy maanaam dafa am ñoo xamante ne ayuñu cour. Mhm. bokkoon ñoom it. ci si grève bi. parce que ku ci nekk yow mi bokkul cour amoon droit génn cour mun nga grève mais dangay toog sa néeg. Mhm. léegi nag ñoom jaaxle nañu parce que léegi gis nañu xaafu kaso bi néeg yëpp génn nañu. Mhm. comprendre léegi ñoom tiit ak paniqué moo waral bal tàq. ok que yaa ngi may déglu bu baax a baax. tiit ak panique moo waral bal tàq lacrymogène tàq. ci biir prison parce que c'est obligatoire parce que ñoom tiit nañu affolé nañu. si la colomotive gars yi ne gars yi bëggoon taw. kaay nag ma xamal na leen nag leen nag tey. gis nga 100 mètres carrés gars yi bu ñu bëggoon daw dañuy xëy suba duñ fa gis kenn. lu tax garde yi fa nekk matuñu cent personnes. te biir kaso bi am nañ ay 200 2500 personnes. ah bon ah da ngay laajte 2500 cent cent cent 100 100 100 ñooñu wóor tamit. seen ngor moo leen fa téye. mënuñu leen mënuñu leen seen ngor moo leen fa téye. d'accord ma xamal leen gis nga kaso ko koy daw ku ne mooy ki ñuy xoj. loolu tamit foog gars yi tamit di ci bàyyi xel. nit bu demee bay daw kaso rek xamal ne man la sumaay xoj nañ ko ci put. maanaam garde yi mayuñu ko jàmm. métti na ci côté comprendre nga fu mu tourné bu ñëpp di mayee comme ça yenn saa yi terrain day am football yow léegi da ngay ñëw ñu bind la ñu effacé la. xam nga genre genre torture. xam nga lu tax loolu. loolu garde yee koy def ci biir. mais pourquoi pas ñoom la am na garde yoo xamante ni dañ lay gis neexoo leen ñu créé lay problème am na ñoo xamante ni man la sumaay dañuy nekk ak yow mel ni du duñu ay garde àdduna moo tëree noonu. Mm-hmm. bu ñuy baaxee ñii ñu ngi dëngal. Mm-hmm. waaw mais en tout cas feu boo fa dégg maanaam wala wala attentat boo fa dégg rek xamal ni am na garde yu créé loolu mais du doon détenu. Mm-hmm. parce que ki ngay yee six heures du matin. mu nangul la yeewu six heures du matin. nga ne ko sukkal ma appel la mu sukk nga appel ko kon kooku yaakaar naa mu ngi muñ. mu ngi muñ. am déet 6 heures du matin laa la wax. mu ki ngay génnee ñëpp la ñuy génnee ñëpp. ba pare ñëpp tout le monde en terre di génne nan la leen di yeewee. waaw nit ñuy yeewee fëgg bunt la. ok affaire boobu moo gën a fort sax sonnerie église. ñu téye bunt bi pour nga yeewu buñ ko nee gën gën gën gën gën mais du doon garde moo koy def garde bi moom bu xasee boobu benn chef de chambre bi laa naan fëggal appel. léegi sa rassemblement boo ko defee mooy corosé bi nga xamante ne la ñuy tëjee bunt bi mhm. moom lay téye nag këng këng këng këng këng këng këng këng bu ko defee képp ku doon nelaw da ngay yeewu ndax bëri boobu noonu ba pare kaay ma xamal leen yéen ñi nga xamante ne yéen a mujjee génn boo leen daanoo fas bu fekkente ne garde bi yéen daf leen yéen da leen ngi baraake yóbbu leen pos sotti leen ndox maanaam humiliation si biir say morom ah oui léegi dund yooyu yëpp nga koy dund biir kaso nee naa léegi man li ma dund biir kaso su ma ko nettalee Sénégal tas ndaxte lan nga dund biir kaso lu loo xam ni boo ko waxee Sénégalais yi ñëpp dinañ taf seen loxo tey waaw xam nga benn rek mhm. waaw xam nga ndeysaan euh, loo gis rek dafa am lu ko waral mhm. te lu sotti am borom euh, man dafa am loo xamante ni tey ji mënuma taxaw comme nii di ko wax mais bis bu wax jotee dinaa ko wax parce que am naa sama situ bopp mhm. yow gis nga loolu sax comprendre amaana li ci bëri waaw ci foofu noonu lañ koy xamee dugg YouTube rek tàppe Latir Mbaye mhm. bés à abonné xaar mhm. waaw di nga fa gis yu bëree bëri mais mënoon ci manoon na ci may dara laataa ngay kii loo xam ni da ma koy may man waaw yow léegi lan nga bëgg ma may la ko man benn loo xam ne dund nga ko biir kaso bu metti la nga xam lii kat metti na la te waroon ko dund mhm. waaw man li ma dund biir kaso mu metti ma ma remarqué ko mooy maanaam euh, sur peuple bi surcharge kaso bi kaso bi ni mu si chargé waaw benn jour euh, maanaam du ma ne benn jour sax maanaam xam nga neexul c'est que boo dee kàppo yow doo bokk ci kàpp kii paquetage yi. boo dee boo dee kàpp surtout nga yàgg fa. dangay dem ba maanaam dañ lay defal yow sa mergaan yow kese nga mat laa mergaan yooyu. Mm-hmm. waaw pour yow. comprendre mm-hmm. waaw foog nga nekk kàppo pour pour pour mun a am loolu noonu. on sait voilà léegi ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñëw. waaye ñooñu ñëpp bu ñëwee waxuma la toog dañuy taxaw ba fajar. est-ce que barki Seydina taxaw ba fajar am na ñoo xam te ne mois dañ koy taxaw ba fajar. 3 mois 3 mois mais obligatoire fan lay tëdd amul tëdd. parce que néegu exemplaire kon kon kon kon def naa def naa 10 def naa 9 def naa chambre 14 man. man moo gën a tar. mais fu gën a tar fépp a tar. lu waa 10 di jooy moom la waa 11 di jooy li waa 11 di jooy paa yi nekk chambre une moom la ñuy jooy muy lan ñibbi. gars yi waxatuñu tartar bi de parce que niis nañ ko dañoo dem ba dañ koo niis. ñibbi quoi. waaw ñoom problème bi mooy maanaam seen liberté. xoolal comme temps yi lu ñu wax longue détention desetul ci kaso bi mais c' est archi faux ñoom Modou Diabaté 2013 ba léegi ñu ngi fa. ba léegi ñu ngi si ba léegi ñu ngi fa ñoom Modou Diabaté waaw ay cinq personnes lañu ñoom ñu ngi fa dañoo bokk benn problème mais Modou Diabaté mooy seen grand frère mu ngi chambre 20 2013 ba léegi mu ngi fa. ñu ngi naan seen dossier moo réer ñu ngi naan li ñu ngi naan laa. 9 ans de prison. mais mais oui 9 ans bientôt 10 ans ba léegi ñu ngi fa. bientôt 10 ans ñoom Modou Diabaté. ku weddi li may wax demal ba Sambour 20 100 mètres carrés prison Rebeuss nga nga laajte Sambour 20 Modou Diabaté ak kiyom mm-hmm. ñu ñu ñu jàppandoo ay booy yu dëkk ginnaaw raay. Mm-hmm. waaw ay booy dawal ko sareet gaa yi jàpp leen pour jeexal seen enquête moo waral loolu noonu. Mm-hmm. mais booy ñu ngi fa ba léegi te gars yi war nañ leen mën a xam nga waaw. Euh, euh, latir loo jëlee woon ak